ñun ñoo définir le statut de l'indépendant ah. article 57 L 57 ñun ñi mooy koo xam ni euh, musulu milité parti politique wala wala avant élection bi il a cessé au moins pendant un an toute activité militante hmm. or nan nga mën a prouver ni nit ki milité na parti politique mooy soit mu bokk ci AG constitutif bi waaw mën a am tax possibilité nekk ci membre euh, administration bi euh, wala moom nga gis mu am carte de membre dans la pratique nit ki mënoo ñëw rek gis ni ko dafa participer ci réunion parti politique alors que fii dans la xam nañ expérience par expérience parti politique bu ñu def seen i congrès ak seen manifestation dañuy invité euh, les membres de la société civile man mi dax dañ mën a invité ay congrès d'investissement ak yenn yenn yenn kii man maay euh, man maay man maay bañ rek mm-hmm. donc loolu mënoo ko prouver c'est comme la démission en fait li ñu wax député ñu doon wax naan euh, bokkatuñu mais <laughs> mais démission dafa am lu koy matérialiser d'accord mais tey kon li xew assemblée nationale mënatul def dara ci élection yi. li xew assemblée nationale bu ñu fàtte ni Sénégal yàgg na am ay euh, maanaam enquête parlementaire yenn yi dina aboutir yenn du aboutir mais li ci ëpp de temps bi muy jël déjà. mais bi fast track bi ñu ci def. ni niñ ko teelee enrôlé ak yëpp procédure d'urgence woote ak yooyu bi taxul parce que enquête nga wax enquête mën na durer si moi beneen bi mooy. Mhm. Euh, tey dafa am ay obstacles. Euh, duma ni nag amul feneen comme France ci ay cas mais même bu fekkoon ni abouti na. Euh, ñooñu tey ñi ba ñu ba ñu demoon tax par par extraordinaire nga mën a euh, maanaam am foo leen jàppe yow amoo sañ-sañu atte leen. Mhm. man li ma jàpp encore une fois mooy euh, c'est c'est une stratégie politique boo xam ni bëgguma parce que fan yii yëpp damay éviter def l'analyse politique parce que tey dans ce pays dafa am ñoo xam ne dafa mel ni bu ñu sañoon changer candidat. je sais aussi que je sais aussi que tey l'invalidation de la candidature de Karim Wade dafa perturbé chemin yu bëri tamit. ah oui. donc à partir de ce moment euh, jàpp naa ni il faut que ñoom euh, ñu am lu ñuy wane. Euh, je veux pas vraiment di approfondir ci ci ci loolu. ah non mais mais euh, Ndiaga li nga wax man ça m'intéresse am na ñoo xamante ne tey su ñu amoon sañ-sañ changer candidat ñeneen ñi. candidat wu euh, Karim niñ ko euh, invalider également daf leen surprendre changer les données mais ñan ñoo amoon sañ ñu changer candidat tey jii. xam nga man lañ ma laaj. Mhm. man leen je ne doute la bonne foi de de Karim Wade. Mhm. mais ay la yéwén le fait que conseil conseil invalide candidat yi bi moom moo ko indi. Mhm. or il revenait ki nga xam ne moo ne yow am nga double nationalité. mu indi ko mu indi preuve bi. or il n'est même pas dit que preuve boobu. conseil bi nga xam ne dafa wax ni bi mu jëlee décision mën na ci tenir compte xam nga conseil constitutionnel dafa jël décision le 12. Mhm. mu nekk le vendredi. Mhm. mu ni léegi yéen mandataires yi comme samedi la ak dimanche xaar leen ba lundi ak mardi ngeen déposé seen seen seen recours mu leen léegi bu ñu ko déposé may naa leen ba ba ba vendredi midi ñi nga xam ne par exemple dañuy attaqué seen candidature ñoom ñu indi seen mémoire pour défendre kon ce qui veut dire que conséquence il diggante midi la amoon vendredi ak samedi ci guddi léegi diggante boobu. nan la war a mën a defee woo peut-être waa France pour wan laaj leen ni est-ce que bii ñu mu indil pas pour kenn indi mais bu kenn indi di compte candidat euh, maanaam euh, euh, nationalité bi est-ce que est-ce wér na war a wérul mm-hmm. mais nag yow mii ndeyu mbili gi yow nga indi maanaam act boo xam ni moo ngi prouver ni que yow le 16 après tax que conséquence jël sa première décision ba càmbar en fait sa déclaration sur l'honneur bi nga koy doog indi alors à partir de ce moment je me suis dit que mais c'est une erreur de procédure boo xam ne yow demande bi nga defoon soo ko indi woon rek conséquence naan ah kii kat def na demande bi. Hmm. léegi nag xamaguma ba xam ah est-ce que entre temps particulier parce que Karim Wade est un binational. Mm-hmm. il y a ans ci ginnaaw. président bind naa ci président Ablaye Wade bind ci Serigne Mbaye Thiam bind ci. Mm-hmm. man tax dama jàpp ni foofu président Ablaye Wade il a raison parce que koo xam ni Karim Wade dama condition yi mu juddoo moo tax mu am nationalité française donc à partir de ce moment nit ki bu waree nekk candidat à présidentielle waroo ñëw euh, di ko wax ni que en fait war a démissionner alors que moom euh, faloogul la preuve tey Karim on a l'impression que daf perte disperte la il renonce à nationalité même su fekkee ni peut-être y a d'autres procédures bu ko mën a amaate ba pare nekkul candidat loolu moo tax mën loolu la xalaat de de de bi ñu jël acte bi nga xam ne France day dem ba ay 6 mois ñu ne la léegi yow euh, il faut que yow ci ci diir bi même bu fekkee jël nga fonction nga renoncer en fait donc sa sa nationalité d'accord mais tey li xew assemblée national kon tey en plus clair kon suñu gisee kon bataille politique la ñu jël rek transféré ko à l'hémicycle tey jii et on se joue de qui tey jii mun nañ ko jàppee naka c'est-à-dire pour l'état de droit pour la stabilité du pays gis nga lii xawma lu ñuy def nag ëllëg mais gis na lii bu prospérer poignard la bu ñuy bu ñuy dóor euh, bu ñuy jam état état de droit parce que jeter le discrédit euh, sur le conseil constitutionnel bi nga xam ni moom moo moo validé candidature u Macky Sall bii passé mhm. validé candidature am bële passé euh, euh, validé élection législatives locales yi jël yeneen décision war a validé maanaam élection bi di ñëw bu ñu demee ba ngay wax ni que ñoom mën nañ leen a mën nañ leen a guerre alors que dans le passé dans le passé pourquoi 2010 2019 du ñoom ñëpp lañ leen invalidé woon i compris Karim Wade ak Khalifa Ababacar Sall pourquoi lu mel ni amul mais est-ce que tey assemblée nationale war na nam nangu une institution bu toll ni conseil constitutionnel tey jii dayo bi mu am tey jii ñuy indi lii ni mel ñu koy gaawantu di ko enrôler. li ni mel sañ-sañ amuñu sañ-sañ bi amuñu sañ-sañ bi parce que ñoom ñoo la gën a xam ni am na ay décisions yu am foofu bu ñu ko indee conseil constitutionnel conséquence daanaan leen au moins sañ-sañu. waaw loolu. Mhm. il fois. yàgg nañ ko dégg waaw mu xew. alors que aujourd'hui article 91 euh, 93 euh, euh, de la constitution dafa wax ni que ñoom amuñu sañ-sañ maintenant nag mën nañ def seen enquête bu ñu defee seen enquête léegi ba ci cëppaandaw ja on verra. mais man dama jàpp mais mënul gaaw ba fii ñuy dem ci élection bi élection bi dina jeex te xoolal du ñu avancé loolu laa jàpp bu ñu avancé nag mooy mooy kon c'est un complot contre la république. mais complot bi yaa ngi koy wax euh, est-ce que dessiné wul ba pare bu fekkee dafa am ñenn ñoo xam ne su doon seen sago ñu changé candidat su ma la déggee ak li ñu jot a gis moo di waa Benno Bokk Yaakaar. mais xam nga suba suba am na. Mm-hmm. dans tous les cas élection bi li ci des weer a ci des. Mm-hmm. Euh, on verra que est-ce que maintenant ñoom dañuy dañuy def obstacle ci processus bi encore une fois euh, man ñëpp dégg nañ ma pour la première fois man ngaa ñi attitude DGE. mais ay la yéwén tamit dañu leen war a nangul mhm. di an année yi yëpp ils ont relevé le défi de l'organisation du scrutin l'organisation matérielle du scrutin mhm. et je sais que ils sont à pied d'œuvre et que ñoom pare nañ effectivement pour scrutin bi parce que wuure gi dem na këng ah il faut ñu nangu loolu mais tey jii ñu bëri nee nañu dañu bëgg pousser conseil constitutionnel wala membre yi ñu démissionner pour mun a acter li nga xam te ne moo di report des élections ñu ne euh, objectif commission d'enquête parlementaire bi loolu la ci jublu non xam nga géntu mo euh, jàmbur moom mënu ma ko firi mais dans tous les cas les prochains jours dinañu dinañu édifier mm-hmm. waaw parce que nag euh, le fait que euh, Ousmane Sonko nekkul candidat mm-hmm. ak entrave yi ñu ko teg yëpp mm-hmm. moom si boppam il a les conditions pour ay plan Euh, defe naa ni aussi ñeneen ñi mënoon nañu mënoon nañu def def noonu. gore. Euh, et que dans résultat des courses aussi bu ñu quoi qu'on puisse dire. Mhm. Euh, on a révisé le code électoral pour permettre à certains effectivement donc d'être candidats si à euh, ci ci ci fin bi bu fekkee ne maintenant ñoom. Euh, def nañ ay erreur aussi euh, je pense que aussi ñoom ñoo war a ñoom ñoo war a ñoo war a nangu aussi seeni seeni seen i erreur euh, bàyyi en fait que je pense le peuple sénégalais di leen décider. ñu décider pour clore rek fi ñuy terminer sànq da nga ko junjooñ dañ ciy dellu si waat dañu gis une certaine presse keroog ñu génn ne Bassirou Diomaye su falu woon sax du mën a prêter serment ndax mi ngi biir kaso bu boobaa président assemblée nationale mooy substitué wu ci moom. xam nga ñoom dañuy fàttali ni conseil constitutionnel moo moo validé candidature am. Mhm. conseil constitutionnel mooy proclamer résultat ni wax ni moom moo gagné wala mhm. keneen moo gagné. Mhm. donc conseil constitutionnel boobu dina xam ni élection la au suffrage universel. la notion de suffrage universel encore euh, il faut que euh, de suffrage universel il faut que nit ñi xam lan la même tey am na yenn attekat yoo xam ne Sénégal bëgguma woon ñëw ñëwaat un peu li taxoon man ni woon man en tant que euh, électeur am naa qualité à agir. ci affaire sena bi euh, parce que Sénat bi ci boppam euh, article L5 du code électoral moo ni moom moo war a veiller à ce à la régularité du de manière à garantir le droit euh, de l'électeur et du candidat. léegi tey bu fekkee ni Cour suprême dafa wax ni léegi ñun prouvé wuñu te waxul man kese de. dafa wax même parce que maître Ablaye Tine. moom registré wuñu woon. mu ni mu ni euh, citoyen bi électeur bi ak parti politique bi euh, prouvé wul amul un direct or moom li muy fàtte mooy décision bi mu jël moom moom xam nga mooy conséquence bi mhm. mooy que kon ñi nekk membre Sénat rek maanaam ñu jóge fa ñoom ñoo mën a ñoo mën a ñoo mën a attaqué décret bi waaw kon loolu ab euh, bu ci président Macky Sall sukkandiku wala même ëllëg président bi ñëw bu ko neexee jël ay militant parti mi mhm. leen membre Sénat. d'accord en sachant que ni un citoyen ni ni un parti politique kenn mënu ko attaque d'accord donc il faut que ñu respecter la matière électorale. il faut beaucoup d'humilité en fait bon j'espère que maintenant avec le temps nit ñi dañu gën a comprendre loolu euh, et d'ailleurs loolu moo tax souvent damay wax ni Sénégal dañu dañu nekkoon en avance bi président Abdoulaye Wade di teg les cartes numérisées euh, biométriques. 2005 mhm. am na ay. experts yoo xam ne dañu fi ñëwoon jóge bitim dañu wax ne mais pourquoi ñuy jël biométrie di ko utiliser loo xam ne dañu ko utiliser dans les dañ ko war a utiliser dans les euh, dans de sécurité wala ay ay système bancaire ñu koy utiliser pour des millions de citoyens mais au moins Wade loo ko mën a reprocher le procès il est un démocrate mm-hmm. alors tey réew yooyu yi nga xam ne dañu leen y compris réewu tubaab mais ñu ci bëri aujourd'hui raw y a de pays en Afrique yoo xam ne tey da ngay mais lan moo ñu ko yóbbu pour bañ clarté. Euh, non cest à benn moment il faut que nga accepter def les réformes qui s'imposent. yàgg naa fi wax man man dama wax ni que Sénégal modèle mixte bi ñu am baax na. moo on a une administration buy organisée on a euh, une Sénat buy supervisée. on a mm. les juridictions yuy yuy gérer bi di programme les résultats. a mm. aussi une société dynamique euh, mais tey bu ñu demee ba léegi administration bi ñoom si boppam di def yenn entrave yi. et li leen koy defloo ce n'est pas parce que en fait professionnel ñu de Union européenne wax na ko ci rapport am l'administration sénégalaise elle est compétente professionnelle mais elle manque d'indépendance pourquoi parce que l'administration dafa am tutelle bu nekk ci kawam. tutelle politique politique. Mmh. donc il est il est temps que kon ñu dégager ko de la tutelle en fait donc euh, du ministère l'intérieur pour mu nekk en fait le bras technique de la commission électorale voilà en Euh, de collecte et d'enregistrement automatique nga xam ne avant ngay déposer sa candidature yow xam nga ni mat na na te benn électeur non identifié même tey boo defoon erreur da koy détecté yow nga rectifier erreur bi ku parallèle keneen wala ko amul âge bi ñu xam ni euh, mataloo wala même ëllëg on peut faire une chose bu simple commission yi ñu créé pour ñu enrôler électeurs yi nga xam ni euh, daaf dafay nekk déjà e. comme ça léegi ñu wàññi nombre bi daan ni léegi au lieu ñuy demander 44 léegi 10 000 répartis dans la moitié région nga électeur bi déplacé wu pare ne ñi matal matal trois mois mu jeex kon euh, su ma la déggee ci tënk moo di ne li ñuy wax yëpp naan président assemblée mooy substitué wu su jomaay su gañe woon yooyu yëpp amul. waa xam nga conseil constitutionnel am na pouvoir euh, d'interpellation mais aussi pouvoir euh, d'appréciation mais man li ma jàpp notion suffrage universel ku askan wi fal et surtout que ki ñuy wax moom jugé wuñ ko condamné wuñ ko encore une fois xaaral ma wax la dara dañ ne le président de la on certains vous diront que oui euh, bala moo nekk président day jël fonction mais attends dès qu'il élu il président il est quand même président mm -hmm. la rek mm-hmm. euh, léegi nag léegi dañu la président la République loolu waxuma ko conscient moo ko wax mooy kenn mënu ko topp ci dara lu dul haute trahison mm-hmm. et que su boobaa euh, haute cour de justice moo koy jugé waaw donc kañ nañu nañu bàyyi de toute manière ñooy choisir mm-hmm. te tey aussi euh, y a des mais Sénégal aussi il faut que ñu xam ni tamit y' a quand même de nouvelles candidatures issues de la société civile et pas des moindres des candidatures féminines d' candidats issus euh, de la société civile du milieu universitaire ak feneen yoo xam ni c' est des candidats assez valables yoo xam ne je pense que li ñu li ñu war a garantir rek mooy euh, que Sénégalais yi mën a def un choix libre et éclairé.